asalaamualeykum wa rahmatullahi taala baxdal hasbala baxdal basmala wasalaatu wasalaam bi adadama fi ilmillah wala ali ya wala ali wa tasliman hmm, ñu ñëw ci ñetteeli volume bi eh, daanaka waxoon nañ ci tarjumaan bi waxoon nañ ci li nga xam ne mooy muqaddamatun mu doon la nu jiital ñu dugg nag ci bunt bu njëkk Hmm. xam ne mooy baabun di ab bunt la fi axsaami diini ci xaaju diine da ñëpp xam nañ ni diine ñett la mooy al iman al islaam ak ixsaan eh, imaan moom juróom benn ponk la juróom les six piliers de la foi hmm. islam ñëpp xam nañ ni juróomi ponk la hmm. Ihsan ñëpp xam nañ ni moom benn ponk la eh, <coughs> sëriñ bi tàmbalee fii comme dañuy bëgg mu xam naa duma ci kii mm, bu jaree ñu def ko ñaari vidéo sax ndax dafay jar yu bari ñuy leeral mune ne axsaamu diine rabbina xaaju diine sunu borom xaaju diine seen borom sunu borom mu al imaanu bi ci njëkk mooy gëm mooy gëm gëm mooy tax nit doon muumin mm-hmm. mu wa baax daw nekk na ca gannaaw gëm al islaam mooy jébbalu mooy tax ñu doon muslim mooy quelqu'un de soumis euh, wal ixsaan ak rafetaan mooy la clairvoyance hmm. waaw imaanukum seen gëm yaa ayyuhal sihaaru yéen ndaw ñi bi man mi ngay ñeel ñeel na ka nga xam ne loolu ñeel na ko sihaaru ndaw ñi wal kibaaru ak mag ñi dafa ne ñun bu ñu amee kenn ku ñuy gëm kenn dong la war a doon muy yàlla suñu borom waaw yàlla moom suñu mooy ki nga xam ne moom moom mag ñi moom nam ci <coughs> waaw ndaw moom góor ak jigéen a ngi ci ñëpp a ngi ci mm-hmm. waaw mu ne mu ne seen gëm yaa aywa sihaaru yéen ndaw ñi bi man ca nga xam ne lu ñeel na ko muy yàlla sihaaru ndaw ñi wal kibaar ak mag ñi mu ne an tuuminu mooy ngeen gëm billaahi ci yàlla mooy gëm yàlla mooy premier prier bi wal malayka ak malayka yi wal kutubi haadi waaw kutubi haadi mooy téere way ginde yi mooy téere yi nga xam ne wàccee nañu ci yonte yàlla ibrahima ci yonte yàlla aadama euh, euh, yonte yàlla ibrahima yonte yàlla siisa yonte yàlla daawuda euh, yonte yàlla insa muusa sidna muhammad ak yonte yàlla daawud waaw mooy téere yi waaye dinañ ci yegsi mu ci yegsi nañ ko leeral bu baax mhm. eh, saalikin ñu doon ay way soobu yu góor wa saalik ak woy soobu yu jigéen loolu liñ cee xam mooy yonent yi ñëpp xam nañ ni ay góor lañu mës a doon waaye teewul yonent ku mu jur rek daanaka boo matul yonent doon anbiyaay boo nekkul rasul doon anbiyaay a waral ñu doonoon saaliki nekk saalikay mu ne war yowmil aaxiri ak bis wa rusul kiraam Eh, wa rusulil kiraam mooy yonentam yi tedd yi nga xam ne yonent yi cent vingt quatre mille lañu waaye trois cent la ci yónni trois cent treize yooyu vingt cinq rek la tudd seen tur ci alxuraan hmm. moom la sëriñ bi di indiwaat ci sindiir yi waaye moom lu ci bëri naa moo juumul ay vingt quatre la fa indi am na benn boo xam ne sëriñ bi indiwa ko loolu rek pour ñu gën a gëstu rek la hmm. mu ne wa xadri la si ak ndogalu ka nga xam ne ya juudu dana tabeel bil maraam ci sàkku dana dana faj aajo mhm. kon nag pilier yi an tuminu mooy bi njëkk wal malayka muy ñaar wal kutubi haadi ak téere way ginde yi mhm. wal yowmil aaxiri mm, mooy bis penc wa ruslil kiraam ak yonent yi tedd yi wal xadri ak ndogal wala si ka nga xam ne ya juudu dana tabeel bil maraam ci sàkku teef waaw nga xam ne kon nit ki dafa war a gëm yàlla xam ni yàlla dafa wuteeg lépp lu yàlla sàkk yàlla daa wuteeg moom xel du ko daj bët du ko gis hmm. waaye tamit dañoo war a gëm malayka yi neem gisuñu leen tamit dañ ko war a gëm téere yi tamit neem fekkewuñ bañ koy wàcce wala gisuñu ko xamuñu ko dañ ko war a gëm wala yawmil aaxiri bis peñ tamit dañ ko war a gëm ne am na dëgg la hmm. rusul kiram yonent yi dañoo war a gëm ñëpp amul xaaj ak seen hmm. xadri gëm dogal mooy lay mooy juróom benni ponk yi le juróom benni ponk yi sëriñ bi nag day ñëw jàll ci ponk bi njëkk